وقل أعوذ بك رب من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال آمنا بالله sadaqa allahu alaliyu alazim allahuma salli wa sallim ala talaati alxaq bilxaq alkanzi alazam ifaadatika minka ilayk إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi tedd kilifay diine yi mbokk yi ñuy teewlu gannaaw bu ñu santee yàlla julli si yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen nuyoo di leen ziyaara di leen jox seeni wàccuwaay di leen baalu ak di leen baal di leen ñaanal te di ko sàkku si yéen rawatina kilifay diine yi waaye rawatina sama sang sama sëriñ sama wasiila ci yàlla di sayidi wa mawlaay alsharif muhammad ali haydara yal na ko yàlla sàmm te aar ko lafal ko cat ak lammiñ lakku ko fu boddul egg zahiran wa batinan إن شاء الله تعالى بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرهام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها واشهد انك الامام التقي المرضي الذكي الهادي المهدي وان الائمه من ولدك كلمه التقوى واعلام الهدى والعروه الوثقى walxujjatu ala ahli dunia mbokk yi gannaaw loolu ñuy rafetlu bu baax a baax ganale bu ñu ganale si ci Euh, émission bu am solo bi di kursi yu imaamul Malik émission bi doon nag euh, ay ati at ñu koy def euh, ku ñu si dalal di Cheikh Jibril Diop as-Sunni nekk nit ku baax nit ku yaatu xol nit ku oyof te loolu du man kese maa ko ko seedeel te mbokk yi looloy diine diine du questionné man sunni la wala chii la diine bi ay éthique la innama diinu al axlaaq innama al umamu l axlaaqu maa dahabat fa inhum dahabat axlaaquhum zahabu doomi aadama boo amul axlaaq rek xamal ne sa dara amul njëriñ moo tax Seydina Jibril Diop tànk bi nga teg dama lay ñaan nga dal di fa sax axlaaq mooy lépp ci diine ñoo ngi koy jaajëfal bu baax ci invité bu ñu invité waaye ñu koy wax tamit ñoo ngi koy déglu incha allahu taala ci bépp question joo xam ne dafay dal di aju ci lu muy lu ñu nar a waxtaanee tey di mawdu al imaama incha allahu taala di ko naan asal bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi koy déglu. naam Cheikh Jibril euh, lu jëm ci wàllu laaj bu njëkk bi te lan la ñuy tuddee al imaama mbokk yi al imaama dafa doon baat joo xam ni dafa daldi law ci mboolem langage mais baat bi aslu bi arab la waaye tey bu ñu demee ci français ñoom si seen bopp da ngay dégg ñuy naan limaama wolof njaay aussi ne imaam pël bi tamit dal di ne imaamu defe naa ne bambara ji naka noonu waaye baatu imaam ci luga la arabiya lu muy tekki mooy képp mooy loo xamante ne day jiitu loo xamante ne luy jiitu la nga dal di topp moo tax ci luga arabiya yoon bu nit kii di tegu di dox yoon boobu dañ koy tuddee léeg-léeg imam lu tax parce que ci yoon jooju lay tegu di dem donc imam lu muy tekki ci luga may ab yoon joo xam ne doomi aadama da siy tegu di dem loolu ci gàttal la ci luga waay ci istilaax ci sens bi luñ ci jublu mooy benn martaba la joo xam ni yàlla suñu borom subhaanahu wa ta'ala dafa am ñoo xam ne def leen ko jagleel ñooñu mu ko jagleel xëy na après dig ma ñooñu ñan lañu moo tax duma ci gaawantu tudd ay tuur martaba boobu mënees nañu wax ne moom mooy martaba buy ñëw gannaaw bi nubuwa ñëwee bal mënees nañoo wax ni am na ay yonente yoo xam ni yàlla daf leen def ay anbiya may leen martabatu nubuwa waaye dollil leen martabatul imaama imaama mbir la joo xam ne tàndeefu yàlla du tàndeefu doomi aadama ni yàlla suñu borom subhaanahu wa ta'ala dal di tàndee yonente ya mu dal di wax ci suratu ali imrana inna allaha astafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin zurriyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim yàlla suñu borom moo tànd yonente yàlla aadama ak nuux ak waa kër yonente yàlla ibrahim ak waa kër yonente yàlla euh, ak waa kër imran naka noonu nu mu leen tàndee te benn doomi aadama amu ci ndigal dal di def kii mooy yonente kii du yonente naka noonu la yàlla suñu borom subhaanahu wa ta'ala noonu la koy soobee mu dal tànd ki nga xam ne tamit aussi ab imam lay doon mu dal di succéder kii nga xam ne moo nekkoon yonente bi dal di fi jóge surtout ñun ñi nga xamante ne tey yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy suñu yonente gannaaw bu mu fi ñëwee dal dina effacer lépp loo xam ne ab sharia bu jiitu la woon mu dal di samp shariatul islamiya al muhammadiya yonente boobu am na ay imam yoo xam ni ñoo ko war a succéder imam yooyu noonu nag yàllaa leen tàndoon ci azal yonente bi dal di leen Euh, euh, dañ lii waat gën leen leeralaat désigné waat leen avant ñu fii daal di jóge incha allah ci gàttal Seydina Jibril imaama buñ ko waxee fil jumlati ana la aqulu bil jumlati kama tafaddalta li anna bil jumla ishaara ila al mujaba al kulliya te nag defe naa ne imaama ab géej la joo xam ne buñ siy jéem a xuus duñu mus a jeexal looloo tax dañuy jéem a wax fil jumla walaysa bil jumla incha allah ci gàttal lii mooy imaama ñuy xaar incha allahu ta'ala laaj yi nga xam ne moo ci topp damay bañ a wax tuur yi peut-être di nga ñëw laajte tuur yooyu ak fan lañ ko teg looloo tax ma bañ ko tudd ci taarif bii nga xamante ne moo nga ma la dal di laaj ma dégluwaat beneen question bi incha allahu taala salaamaaleykum. waaw jërëjëf Cheikh Jibril Diop jërëjëf loolu am na solo ana ñan ñooy imaam ya euh, ak ñaata lañu. ak tamit ndaxam ba léegi ñoo ngi am euh, ñetti question yi nga xam ne dal di nga ko cocktail ci benn laaj dañuy tàmbale ci bu njëkk bi mooy ñan ñooy imaam ya imaam yooyu noonu ñooñu avant sax may naan damay jiitu ñan ñooy imaam ya il faut ñu leeral ñooñu ñaata la ñu d'abord yonente bi nga xam ne sallallahu alayhi wa alihi moom la yàlla yoon di si ñoon waxoon nañu nombre imaam yooyu ñaata lañu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ñu ne woon al a'immatu ba'di ithna achar imaam yi si ma gannaaw douze lañ maanaam duñu treize duñu onze duñu yokku waaye aussi duñu wàññeeku donc nombre imaam yi leer na léegi nag ñu dal di ñëw wax ana ñan ñooy imaam yooyu imaam yooyu fi manzuuri ahlil bayt alayhim assalaam te jàpp nañ ne moo méngoog lu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dal di jàngale parce que bu ñu xoolee yonente bi def ñoo imaam yooyu douze lañu du ñu yokk du ñu wàññeeku boo leen ñëwee ci aqidatu ahlul bayt ci pas-pasu ahlul bayt yi ci ngeen di fekk ne imaam yi douze lañu yokkuwuñu wàññeeguñu waaye ci ñeneen ña soit da ngay gis ñoo xamante ne soit disant dañ leen ne ay imam lañu wala ñu ne ay xalif lañu soit ñu manqué douze wala soit ñu ëpp douze te bu boobaa nag loolu dafay dal di wute ak li nga xam ne moom la rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dal di désigné te nag yonente bi laa yantiqu anil hawa li mu wax loolu moom mooy am ñu jàpp ne nag imaam yooyu ku si njëkk mooy imaam Ali salaamullahi alayhi ku si topp di imaamul Xasan ku si topp di imaamul Xuseyn imaam ali zeynul abidin mooy quatrième ba imaam mouhamadul baqir di cinquième ba imaam jaafaru sadiq di sixième ba imaam moussa al kazim septième ba imaam aliyu rida huitième ba imaam mouhammadun il jawad neuvième ba imaam aliyun il haadi dixième imaam alxasanu al askariyu nekk onzième ba ak imaam mouhammadin il mahdi ajjala allahu taala farajahu sharif nekk douzième ba onze imam yu njëkk ya tàmbale ko imam ali ba imam alxasan al ñi ñii ñépp dal dinañu wuyu ci seeni borom génn nañu àdduna si seeni jamono ku nekk ak nu mu génnee àdduna imaam ali alayhi salaam ñun ñëpp xam nañ naka la noon yàlla bi daldi ko bette ci jàkka mu daldi di jël jaasi bu ñu posone daldi door bopp ba imaam ali dal am shahada ci mihrab ja ci baytu ci jàkka yàlla ja imaam ali mooy koo xamante ne dafa judd ci jàkka judu ci kaaba ja dal di deewee tamit ci mihrab ba ci ci mihrabul kuufa donc imaam ali alayhi salaam moo amoon loolu ba mu dal di waxal boppam ne fuztu wa rabbil kaaba imaamul xusayn salaam naka noonu moom it dañ ko dal di faagaagal boom martyrisé ko fale ci terre bu ñuy wax Karbala nekk ci Irak histoire boobu umpuwul benn jullit umpuwul benn doomi aadama defe naa ne képp koo xamante ne dafay jéem a wut dëgg ak mbañeel ak tooñ bu ñu tegoon waa kër rasulillah bu jàngatee la tragédie de Karbala dina mun a xam ne que kat ahlul bayt alayhim salaam dañoo yàgg tee diina ji yàgg taxawal diina ji te ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo yore mboot bi ñoo fi nekkal yonente sallallahu alayhi wa sallam ba nga daal di ñëw yéefar yi ñi ñëpp dañ leen dal di rey waaye nag konka laa taxlul ardu min imam suuf si du musa a ñëw du musa nekk loo xamante ne du am imam bu koy kii yàlla dencal ñu beneen imam joo xam ne mooy suñu imam jamono tey parce que yonente def ñoo ne sallallahu alayhi wa alihi man maata man maata bi gayri imam maata miitatan jahiliya man maata walam yaarif imaama zamanihi maata miitatan jahiliya képp koo xam ne génn na àdduna te xamul imam jamonoom ki mu war a topp dafay dal di dee deewu ignorance te ñun nag tey ki nekk suñu imam mooy imaamul mahdi moom yàlla def koo dal di yëkkati tee ko ci xam-xamam ni mu yëkkatee yonente yàlla isa tee ko ci xam-xamam te ba tey deewul moom tamit keroog bu ko soobee dina ko dal di bàyyi moom yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo ko tee ba keroog bu soob mu soob ko mu daldi di koo bàyyi moom imaamul mahdi mooy suñu imaamu jamono tey donc ba tey imaam yaa ngi dund moo ngi am parce que imaam bu amul rek la saaxatil ardu bi ahliha ni ko ahadis yi waxee imaam amul si kaw suuf rek yalla suñu borom subhaanahu wa taala dafay dal di jeexal suuf si isan seydina jibril tey suñu jotaay ji dafa war a saf war a saf sàpp parce que jotaay ji moo moo moo tuddee noonu mooy al imamatu inda shia masadir yi dinaa ko andi ci tashayu parce que jotaay bi moo ko laaj waaye tamit léeg-léeg dinaa leen andil bu ko aajoo ci sunna yi min baabil ilzam mbokk yi boo la ñëwee si suñu téere bi tudd arbauna hadithan mu'tabaran fi nnassi ala al a'immati al isnay ashara bi asmaihim ngeen ñëw ci téere jooju dafa am xadis joo xam ne dañ ko jëlee ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon xadis bu wér këng di xadisun saxiix wa rijaluhu suqaatun ajilla ñu daal di ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa alih yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nee na lamma urija bi ila sama balagtu sidrata almuntaha keroog bi nga xam ne rañaan naa jëm ca asamaan sa jublu ci yàlla bi ma yeggee borob jooju ñuy wax ñu tuddee sidratul muntaha naadaani rabbi jalla jalaaluh foofu la ma yàlla suñu borom subhaanahu wa ta'ala daldi woo man man bi fa qaala mu daldi ma ne yaa muhammad yow yonente yàlla muhammad fa qultu ma daldi ko ne labbayka labbayka yaa rabbi wuy si naa la wuy la yow sama borom yow mi ma moom qaala yàlla daldi wax yonente bi ni maa fanqadat ayyaamuhu illa aqaama bil amri ba'dahu wasiya yonente bi maa ngi lay xamal ne musuma yondee ab yo ab ndawal joo xam ne sama yonente la ba keroog ma daldi ko jël si mu wuyu si ma lu dul ne dama koy digal mu dal di désigner moom si boppam mu am sama ndigal mu désigner kenn ku koy wuttu gannaawam fa فأنا جعلت علي بن أبي طالب خليفتك وإمام أمتك waaye déglu ma yaa ngi ci borob bu tedd bi di sidratul muntaha yaa ngi wax ak sa borom mi nga xam ne mooy sa soppe déglul li ma lay wax man maa la def désignel imaam ali alayhi salaam mu doon sa xalifa doon sa imam ca ginnaaw donc al imamatu ja'lun ilahi mu ne gannaaw imaam ali summa al topp ci imam Xasan summa al Xuseyn topp ci imam Xuseyn summa Ali ibnu al Xuseyn topp ci imam Ali ibnu al Xuseyn ba mu yegg ci imam al summa al Xujjat ibnu al Xasan ba mu yegg ci imam Muhammadin al Mahdi te ñii ñooy douze yaa Muhammad yàlla woote yonente bi yow yonente yàlla Muhammad irfa rasak yëkkatil sa bopp donc yon yonente bi bu mu doon déggul wax yàlla bi dafa wàccee woon boppam lu tax ngir respecté kaddu yu muy dëgg fa rafa'tu ra'si yonente bi dal di yëkkati boppam fa ida ana bi anwaari ali bu mu ko yëkkatee mu dal di gis leeru imaam ali ak imam hasan ak imaamul husayn ak neuf imaam yi nga xam ne ay descendance su imaamul lañu ak ki nga xam ne mooy imaamul mahdi ajalallah farajahu sharif di neuvième descendance de imaamul Hussein mu dal di gis imaam mahdi nekk si seen diggante ñu nekk ay leer yoo xamante ne ñoo ngi melax mel ni ab benn kawkab joo xamante ne yàlla rek a xam nu mu dal di mel ci ab leer fa qaala allahu taala yàlla dal di wax ni yaa muhammad yow yonente yàlla muhammad yow sama yonent haulaai xulafaa'i ñii ñooy sama xalif ñii laa désigné sa gannaaw te ñooy douze personnes ya wa xujaji fi l ard ñii ñooy ñi nga xam ne keroog yowma alqiyaama ñoom lay layo ak ñii nga xam ne ñooy sama jaam ya wa xulafaauka wa awsiyauk ñii ñooy say xalifa ñooy say wasiya min badika ca gannaaw fa tuuba liman ahabbahum ay waay e, e, e, texe ñeel na képp koo xamante ne bëgg na leen te topp leen wal waylu liman abgadahum waaye tamit alak ak mbëggeel ñeel na képp koo xamante ne dal dina leen bañ te bañ leen topp donc dañuy gis ne fii imaam yooyu douze lañu te noonu la ko yonente bi waxee mu dal di ñëw ci ahadis sunna ak chia yëpp désigné wax ne al aymatu baadi isna achar isna achar yooyu noonu nag mooy ñun chiite yi ñu gëm mooy ñii nga xamante ne ñoom la ñu cité nii léegi di tàmbale imaam ali ba jeexee ko ci imaamul mahdi ajjalallah farajahu sharif lu jëm ci laajte bi xam naa damay dal di wàccee barke si fii ni may déglu beneen laaj incha allah waaw Seydina Jibril jërëjëf ci laaj bi waaye xam naa ne laaj bi li koy tontu du daanaka jarul muy gudd mooy Eh, imaam yi nga xamante ne ñoom la yàlla dal di désigner ñoo war a wutu yonente bi gannaawam te loolu moom la ñu gëm mooy suñu pas-pas imaam yooyu yàlla def na ne ki nga xam ne moo war a wutu beneen imaam bi yàlla def na ne kooku yàlla da koy dundal avant keneen ki di eh, di faatu avant keneen ki di am shahada ndax ma minna illa euh, euh, maqtulun aw masmum ñoom ñëpp dañoo am darajatu shahada boo xoolee imaam ali alayhi salaam moo waroon succéder yonente bi sallallahu alayhi alihi te moom imaam ali kañ la wutu yonente bi mooy bu keroog yonente bi jógee dal di wuyu boromam imaam ali alayhi salaam succéder ko imaamul xasan alayhi salaam moo waroon succéder imaam ali alayhi salaam kañ la dal di succédé mooy keroog bu imaam ali daldi di wuyoo boromam imaamul xusayn salaamullahi alayhi naka nonu kañ la succédé imaamul xasan mooy keroog bi nga xamante ne muawiya dal dina jël euh, ndigalam boobu dal di yónni ndaw soosu mu dem posone imaamul xasan bi nga xam ne moo nekk imaamu jullit yépp imaamul xasan ci poson boobu dal di fa jaar boromam imaamul xusayn donte moo doon dund ak imaam ci jamonoom waaye imaamul xusayn yorul woon marta yorul woon martabay imaama ba lu tax parce que magam moo ngi dund te magam moo ko doon te ni ko yàlla désigné waaye keroog bu ko muawiya posone mu dal di génn àdduna ci poson boobu imaamul xusayn alayhi salaam dal di jël imaama bi continuer ko imaamul xusayn alayhi salaam dal di jël imaama bi continuer ko gannaaw moom tamit buñ ko faagaagalee ca Karbala imam ali zeynul abidin dal di jël na ko noonu imam muhammadul baqir ba mu yegg ci imam alxasanul askari ajjalallahu taala farajahu sharif moom imam xasanul askari alayhi salaam moom it gannaaw bu mu fi génnee doomam moo ko succédé di imam muhammadin il mahdi ajjalallahu taala farajahu sharif donc ñoom ñëpp alhamdulillahi taala bi tartibi raaxaw wassalaamu aleykum naam samahata cheikh Jibril Diop maa ngi jaajëfee bu baax laaj bu am solo boobu nga dal di laajte euh, waaye ci laaj boobu mooy ndaxam imaama yàlla suñu borom subhaanahu wa taala dal dina ko tudd ci alquranul karim ahankañ yalla tudd na ko ci alquranul karim waaye dafa am loo xamante ne dama ko bëgg a fàttale doomi aadama yi donte bu ñu newoon sax tuduñu ko ci alquran bu ko xadis tuddee te mu wër loolu rek waroon naa doy loolu waroon naa doy waaye nag sant yàlla bi ko alquran tuddee boo leen ñëwee ci miraatul uqul fi charxi axbaari rasul bu al allaama muhammad baqirul majlisi moo ngi jëlee xadis bi ci jaabir mu daal di ne an abi jaafar jaabir mooy jaabir ibn abdullah al ansaari jaabir ibn abdullah al ansaari ab saxaabi jalil la bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne ñoo bokk ñoo gënoon dund ñoo gënoon a gudd fan moom jaabir ibn abdullah al ansaari ci la bokk naka noonu am na ñeneen ñoo xamante ne tamit guddoon nañu fan trop lu su mel ni ñoom salman al farisi mu ne jëlee nañ ci papay jaafar papay jaafar moom mooy imaam muhammadul baqir mooy cinquième imam ci ahlul bayt alayhim assalaam mu daldi ne imaam jaafar nee na mu daldi ne imaam muhammadul baqir nee na lamma nazalat haadihi aaya keroog bi nga xamante ne yàlla suñu boroom subhaanahu wa ta'ala wàccee na aaya boobu dinaan yawma nadu'u kulla unaasin bi imaamihim keroog yowmal qiyam bi nga xam ne yàlla suñu borom dinañu taxawloo ñun ñëpp ci saatul max saaxatul mahshar keroog bi nga xamante ne tappale amu fa caaxaan amu fo lam lame amu fa yàlla suñu borom dal di wax ne keroog bu ñuy dal di woo nit ñëpp ak seeni imam qaala al muslimun après ci la jullit ñi daldi di laace yaa rasulallah yow yonente yàlla muhammad alasta imaamu nnaasi kulluhum ajmain ndax yow nekkuloo yaay imaamu nit ñépp fa qaal qaala mu dal di ne e, fa qaala mu dal di ne rasulullah yonente yàlla muhammad salallahu alayhi wa alih ana rasulullah dégg la man yonente yàlla laa ci nit ñi ñoom ñépp walakin waaye tamit waaye nag sa yakunu min ba'di a'immatan ala nnaasi min allahi min ahli bayti waaye maa ngi leen xamal ne dina am yeneen aimma yoo xamante ne dañuy jóge ci nit ñi dal di bokk si sama waa kër man rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min ahli bayti yaqumuuna fi nnaasi fa yukzabuuna ñuy dal di jug di taxawal maandute ak rafetal di jéem a jubal di jéem a doxal diine ci nit ñi waaye nit ñi dal di leen weddi bal ñu daldi di dem ba dal di leen rey wa yazlimuhum aimmatul kufri wa dalaali wa ashyaauhum ñi nga xamante ne ñoom ñooy im euh, ñoo jiite yéeféer ak lépp loo xam réera di la ak ñi leen topp dañ leen di dal di tooñ fa man waalaahum ah sama imaam yii ñii nga xamante ne ñooy samay awsiya yonente bi dal di ne képp koo xamante ne moom jàpp na leen topp leen nangul leen déggal leen moom wa saddaqa mu dëggal fa huwa minni na mu xam na xam ne kooku ci man la bokk man la topp wa ma i man la àndal wa sa yalqaani te dina ma fekk yowma alqiyaam inchaa allah ma daal di ko fayal sama bopp ala wa man zalamahum maa ngi leen di xamal nag ala xarfun li tahdidi lugatan yéen ñi jàng luga arabiya ala li tahdid yonente bi moo ngi leen di gaar xamal leen ni ay waay ñu tooñ imaam yooyu wa kaddabahum dal di leen fenloo bañ leen topp fa laysa minni kooku ak koo munta doon yeggal foo munta yegg nañ la yëkkati ba ba fu mu gën a kawe doo dara ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkuloo ci moom te doo ànd ak moom wa ana minhu bari yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal dina man kooku pare naa ci moom donc yonente bi ku muy àndal mooy koo xamante ne dafa nangu dëggal topp ànd ak kii nga xam ne moom mooy waa kër yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boo leen demee hadis bi moo ngi ci alkaafi ci mujal mujalladul awal bi juzul awal bi safha deux cent quinze imaam euh, kii nga xamante ne mooy allaama Mouhamed Baqirul Majlisi euh, dal di ko wéral ci miraatul uqul donc lii dalil la buy wane ne imaama tudd nañ ko ci alquran inda shia inda waaye nag dinaa ñëw andi ko inda sunnati min baabil ilzaami wa min baabi tawdiihi akthara insha allah donc Cheikh Jibril tatmiman lil faida gannaaw bi nga xamante ne andi na liy wone ne imaama eh, yàlla tudd na ko ci alquran ma jëlee ko ci chia yi parce que nee naa la affaire bi dafa war a saf sàpp tashayyo dinaa la andil tamit eh, fiñ ko tuddee tamit ci sunnit yi ci téere sunnit yi boo leen demee même aaya boobu ma andi woon sànq ci téere chiya yi ci miraatul uqul bo bu euh, baq Mouhamed Baqirul Majlisi al allaama Mouhamed Baqirul Majlisi mu nekk xadis bu wër ñu jëlee ko ci saxiix kii ci alkaafi lil kulayni e boo leen ñëwee même aaya boobu in yawma nadu kulla unaasin bi imaamihim boo leen ñëwee ci tafsir ibnu abi xaatam moom it dal dina jëlee ci ibnu abbas dal di ne bi imaamihim fii mooy imaamu hudan wa imaamu dalaala mooy koo xamante ne képp koo xamante ne dafa doon topp imaamam soit imaam joo xam ku doon jubale la wala ku doon réerale bis boobu yàlla dina leen woo si ngeen ñëw tamit ci tafsir al-Qurtubi moom it mu jëlee ko ci imaam Ali mu dal di wax naka noonu boo leen ñëwee tamit ci tafsirul tabari di jaamiul baya tafsiru tabari di jaamiul bayaan an tawili al quran an tawili ayi al moom tabari nee na yawma nadu kulla unaasin bi imaamihim firee nañ ko ay firiwaay yu bëri waaye bu si gëna a wér ci moom mu ne wa awla hadihi al aqwal indana bi sawaab waaye bu gëna juba jubag méngoog dëgg ci wax yooyu ñu daldi di firee Eh, imaam imaamihim ci eh, ci aaya boobu di naan yow mën a doo kulla unaasin bi imaamihim mu ne qawlu man qaala mooy kooku nga xamante ne dafa daal di lu tekki mooy yow mën a doo kulla unaasin bi imaamihim lu muy tekki mooy allazina kaanu yaqtaduuna bihi mooy ñooñu allazi kaanu yaqtaduuna bihi mooy kooku nga xamante ne nit ñi moom lañ doon dal di topp wa yatamuuna wa yatamuuna bihi fi dunia moom lañ doon topp ci aduna li anna al aghlaba min istimaali al moom al-Qurtubi daal di ne mu ne parce que li gën a ëpp bu arabisant yi bu ñuy utiliser moowu imam day day dafay daal di firi fii ma tumma waqtudiya bihi mooy képp koo xamante ne day dafa jiite ñu topp si ñu daal di roy ci ginnaawam mu ne wa tawjihu maani kalaamillahi ila al ashhar awla mu ne nag waxu yàlla yi pour ñu daal di leen jubal ci li nga xamante ne moo gën a wér moo gën a fës loolu moo gën lu dul ne fekk dafa am beneen xadis beneen dalil joo xam ne daf koy dal di weddi loo xamante ne daf koy dal waaye nag loolu amul fii nee na donc loolu fii lu muy firi mooy eh, yow ma nadu kulla unaasin bi imaamihim li si gën a wér mooy ku nekk bés keroog bés penc mooy dañuy woo nit kooku noonu ak imam bi mu doon topp ci àdduna donc imam li muy firi fii ni mooy ki nga doon topp ci àdduna nekkul comme ñeneen ñi lu ñu doon wax ay téere yu mel noonu léegi nag ibnu taymiya dafa wax lu am solo ci tafsirul bi ibnu taymiya bi nga xam ne ñenn si suñu mbokk waxaabiya yi moom la ñuy jaamu daanaka moom dafa daal di ne wa amma tafasir allati eh, fi aydi nnaas fa asaxuha ci téeréem boobu di majmu fatawa ibnu taymiya mu ne amma tafsir yi nga xamante ne moo nekk ci loxo nit ñi te ñu mun koo téye mu ne bu si gën a wér moom ibnu taymiya dafa ne tafsir muhammad ibnu jarir at-tabari nee na tafsir muhammad ibnu jarir at-tabari moo ci gën a wér mu ne fa innahu yazkuru maqalatu salaf bil asanidi sabita moom muhammad ibnu jarir at-tabari ibnu taymiya seedal ko ne ci tafsiram boobu lu mu fay tudd mooy waxu waa aimmatu salaf da koy dal di tudd ci ay asanid yoo xam ne yu wér la mu ne tamit walaysa fihi bid'a ci biir téere bi nga xamante ne moom mooy tafsiru tabari ci biir téere boobu amul bidaa képp ku wax ne lu nekk ci téere boobu bidaa la yow si sa bopp yaay bidaa fi fi nazari ibnu taymiya mu daal di ne wala yanqulu anil muttahamin moom muhammad ibnu jarir at-tabari ibnu taymiya seede ci moom ne moom du tuxal lu ñoo xamante ne dañ leen tuumal mu ne kaka euh, mu ne wala yanqulu anil muttahamin euh, mu daal di tudd foofu ñaari nit yu demee noonu donc Eh, moom ibnu taymiya seedal na muhammad ibnu jarir at-tabari tafsiram bi moo gën a wér ci tafasiru ahlu sunna eh, ci tafasir yi nga xam ne moom la ñu téye donc bu benn bi ñëw fii eh, ngeen baal ma ci terme bi di ngewti ngewti di naan lii ak lii ak lii ak lii nii ak déedéet ibnu taymiya bi nga xam ne huwa bi masdari peut-être xaw ma koo xamante ne moom waxam doo leen ko teggi kooku loolu la leen wax bu la ñu donc bu ñu kenn ñëw di fàtt foofu noonu lii dama ko andi woon rek eh, min baabil ilzami wa illa nahnu jina bil masdari al asli wa huwa al masdaru shii al mutaqaddimu aanifan fi miraati al uqul lil allaama al cheikh Mouhamed Baqir al Majlisi waaw Seydina Jibril Diop jërëjëf xam naa ne nag ñun waxtu bi sori na trop si suñu fi waaye waxtaan bi jar na ko Seydina Jibril bu fekkee ay imaam dal dinañu tase bu dee ay imaam tase nañu ñoom ñëpp lu mel ni ñetti imaam tase ci benn bërëb ci benn jamono euh, ku ñu war a topp ñoo xamante ne moom moom la ñu war a topp mooy ki nga xamante ne moo waroon a wuttu gannaaw bi nga xamante ne yonent bi jóge na par exemple imaam Ali ak imaam Hassan ak imaam Hussein ñoo bokkoon jamono euh, sikk amul ni imaamul imaamul Ali la ñu war a topp ñoom ñëpp ñoom la ñu war a topp imaamul xasan tamit ak imaamul xuseyn sikk amul ne imaamu xuseyn moo waroon topp imaamul xasan ci ay kaddu du warul wute moom benn yoon gisuñu wute am seen diggante supposons wute am na seen diggante bu wute amee seen i diggante supposons neewuma la ne am na bu wute amoon dañuy dal di dellu ci imaamul xasan te loolu nag alhamdulillahi rabbil alamin loolu amul euh, beneen bi mooy bu fekkente ne imaam dal na génn euh, àdduna fekk ki ko waroon succédé xale la ndax kooku war nañ ko jël jox ko imaama ji parce que kooku xale la euh, nga dal di joxe exemple ci imaamul Xuseyn salaamullahi alayhi keroog buñ ko faagaagalee faagaagal ju ñaaw jooju faagaagal jooju nga xamante ne képp koo xamante ne dal dina ko jàng xam ko rongoñam bi du mun a def lu dul mu dal di tuuru moom imaamul Xuseyn buñ ko faagaagalee ki ko waroon a succédé moom mooy imaam Ali Zeynul Abidin di doomam te kooku di imaam Ali Zeynul Abidin keroog Karbala eh, dafa nekkoon ku feebar te bés boobu yaakaar naa ne moom imaam Ali Zeynul Abidin peut-être yow yaa ko tuddee xale waaye majeur la woon magum jëmm la woon te su ma juumul il avait ses vingt trois ans et poussière loolu benn beneen bi supposons xale la par exemple imaam Mouhamadul Jawad imaam Mouhamadul Jawad mooy neuvième imaam ci ahlul bayt salaamullahi alayhim mooy neuvième imam ci ahlul bayt alayhim salaam mais moom keroog bu papam génnee àdduna di imam Muhammad eh, imam Aliyul eh, imam Ali Ar-Rida imam Muhammad al Jawad bi mu doon jël xilaafa gi ñu bëri nee ñu neuf ans la mais est ce que neuf boobu war na war na koo mën a tax mu jël xilaafa bi parce que xale la woon ci âge ahankañ da koy jël parce que imaama du question wu eh, âge imaama yàlla daf leen dal di tànn jox leen lépp waaw yàlla daf leen may lépp lépp lépp luy xam-xam même donte amoon nañu ay neuf ans ay neuf ans dix ans la ñu amoon ci keroog imaama bi yàlla xamal na leen lépp loolu nag euh, nekkul loo xamante ne lu garaaw la nekkul loo xamante ne lu kii la parce que bu ñu xoolee par exemple yonente yàlla isa alayhi salaam takallama fil mahdi sabiya bi mu nekkee xale bu ndaw la commencé woon wax ay kaawteef te ñun ñu jàpp nag suñu imaam yi alayhimu salaam li yàlla mayoon yonente yàlla isa ci xam-xam yàlla may na leen ko bal wa akthar donc loolu ke loolu réponse la pour li nga wax noonu amma imaam ali zeynul abidin xale la woon keroog karbala kooku du xale keroog karbala parce que amoon na vingt trois ans ak lu jëm euh, wala lu ko ëpp yi tamit bu nekkee bokk nañu jamono ki ko ku leen war a succéder mooy ki jiitu kooku moom moo war a nekk ci kaw après keneen ku si topp moo war a déggal kooku waroon jiitu comme exemple imaam Xasan ak imaam Alxuseyn ñoo waroon déggal imaam Ali ñoom jamono dañ ko war a déggal waruñu wute ak moom noonu rek la war a demee comme ni nga xamante ne anbiya ulul azmi yi léeg-léeg da ngay gis benn nabi ulul azm mu tombeek beneen nabiyu xam nga yonente yàlla Moussa nabiyun min ulul azmi la kii nga xamante ne mooy Haarun moom tam yonente yàlla la tombe nañ ak jamono ñoom ñaar kam moo war a déggal boromam kam ci ci ci ci charia la war a dox ci yonente yàlla Haaruna moo war a dox ci charia yonente yàlla Moussa lu tax parce que yonente yàlla Moussa moo ko yilif donte ñoom ñaar ñëpp ay yonente lañu te ñoom ñaar ñëpp tamit jàpp nañ ne li ñuy wax yëpp ci yàlla la jóge te li ñu gëm mooy ñoom ñaar du ñu wute donc naka noonu imaam yi naka noonu du ñu wute ci li nga xamante ne moom la ñuy dal di wax te bu bu ñu fekkantee jamono ki waroon succéder dëgg-dëgg moom la ñeneen ñi dal di nar a déggal allah taala jiital. Sayyidi wa Mawlaaya Jabrail sa laaj bi dafa daw yaram laaj bi dafa daw yaram e, bi ma dégloo sa laaj bi e, dama laaj sama bopp ma ne yaakaar naa ñu bëree ci ñi nga xam ne ñoo ngi lu ñu tut téere yi ñoo ngi laajte seen bopp loolu ñenn ñi nga xam ne xazu bi daldi la leen ëmbaale sens ah, ñu am sens ñu dal di nangu dégg ko topp loolu lu tax parce que tey eh, li yàlla ak yonente bi daldi ñu désignel lool la ñu si bëri ci jullit ñi daldi di bàyyi topp li nga xam ne moom moo leen soob neex leen xam nga dafa bokk ci suñu gëm-gëm que imaam yi nga xamante ne ñoom la topp ñooy ñi yàlla désigné ñoom la war a topp ñooy ñi nga xamante ne ñooy ulul amr yàlla digal ñu nañu topp ulul amr ñooy ñi nga xamante ne ñooy seede si nit ñi ñooy portu yàlla ñooy buntu yàlla yi ku bëgg a am baabul maarifa irfaanu billahi taala ci imaam yi ngay dal di ñëw ku bëgg a am xam-xamu fiqh ngay dal di ñëw ci imaam yi imaam Jaafaru Saadiq rek doy na bépp beneen kuy wootewu mazhab koo xamante ne eh, jëlewoo ci imaam Jaafar kooku amul donc ñooy yoonu yàlla ñooy tegtale ci yàlla ñooy dëgg-dëgg ñu mun a comprendre alquranul karim bi te mun koo xamale waaye ñooy ponku kennal yàlla ku kennal yàlla dëgg daf leen di nangul ndax yonente bi moo ñu ko digal ñooy magasin wu xamxamu xamu yàlla bi yonente bi dafa dal di wax ci ñoom masalu ahli bayti fiikum ka safinati nuuhin man rakibaha naja wa man taxallafa anha gariqa wa hawa sama waa kër ci dafa mel ni bato yonente yàlla nuux bato yonente yàlla nuuxu jamonoom ku ko yëgoon mooy mucc ku ko woon dal lab lii nag ci baabu tamsil est-ce que yonent ñoom ay bato lañu xaqiiqi déedéet majaazan la léegi nag bato yooyu bato ahlul bayt bi ci lan lay daw ci ndox lay daw comme bu bato yonente yàlla nu doon daw déedéet bato boobu noonu signification bu muy signifier mooy ñoom ñoo ñuy musal ci tuuxi duuna yu ñu nekk ci ay lab ci ay bàkkaar looloo tax maam Maodo Seydi wa Mawlaay Alhaaj Malick Sy Tiwaawoni ridwanullahi taala alayhi ci tey siiram dafay dal di ne tamawaja albahru bahru zanbi ya fiqati wa innani rabbi xiftu algarqa yallaahu wa ma safinatu turja gayru rahmatika aluzma alamimati kulla alxalqi yallaahu gis nga géej bi géeju bàkkaar la tey géeju bàkkaar la ñu nekk ak réeradi ak tuuki duuna te luñ si mun a tere mam Maodo daal di ne bato boobu kese la te haadihi ishaara latifa ila hadithi safina ndax mam Maodo kenn gënu ko dégg sunna rahmatullahi taala alayhi donc bu ñu bëggee texe yonente bi ne nañu jàppandu ci ahlul bayt ndaxte ñooy ba ñooy safinatu nuuhin fi hadihi l umma ku bëgg a texe rek faw nga jàpp ci ñi nga gis ne mawqif bu umma bi nar a am ci ahlul bayt mooy topp leen déggal leen nangu jëlee ci ñoom parce que ñoom la hadis dal di ñëw ak alquran dal di ne dañ leen war a topp taatuhum waajiba donc taxawaay jullit ñi tey ñoom ñëpp li mu war a doon mooy ñu dellu siwaat ci li nga xam ne moo nekk moo mooy li am te ñoom ñépp dëppoo wéral ko mooy nangu jëlee ci ahlul bayti alayhim nangu jàpp ne ahlul bayti ñooy delluwaayu originalu diine ñu si des ñépp ay photocopie lañ imam malik imam hanafi imam euh, euh, hanbali shafi'i ay photocopie lañ ci par rapport ak ahlul bayt ahlul bayt ñooy original donc delluwaay bu njëkk ci jullit ñi tey ak li leen war tey ñoom ñëpp dañoo war a dellu ci ñoom lu tax parce que dafa am nas boo xam ne xat i yaqini dafa dal di ñëw ci alquran ak sunna digal ñu dal di ne nañu topp ahlul bayti waaye amul benn nassu bu ñëw dal di ne nañu topp abu xanifa wala malik wala shafai wala xanbali amul waaye nag istixsaanaat aqliya ñenn ci jullit ñi dal di leen topp ci rafet njortu bàyyi li nga xam ne mooy li nekk farata te mooy topp ahlul bayt alayhim salaam bu ñu xoolee ci lu mu gën a deedee waxu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam keroog bu mu ne inni qad taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'diya abada loolu mooy lan athaqalayn bàyyil naa leen loo xamante ne en tant que si jàppandu doo leen mos a réer cama mooy ñaari mbir yu diis yooyu wa ahaduhuma akbaru min al axar benn bi ci ñaar yooyu moo gën a diis beneen bi moo ko gën a rëy te boobu mooy kitaab allah mooy téere yàlla bi yonente bi daal di def tawsif kitaabullah téere yàlla bi mu ne hablun mamdudun min as-samaa ila al ab buum la joo xam ne yàlla de ko tallal xëcc tiire ko ba ci ci suuf si ba ci asamaan sa mu ne wa itrati ne na ñaareel mbir bu diis ba mooy sama waa kër ahla bayti ala wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya alhawd nañu xam ne ñaari yi yonente bi xamal ñu ne di alquran ak yoon ak waa kër yonentam du ñu mus a tekkaloo ba keroog ñu may fekk yowmal qiyaama donc leer na ñëpp xadis bi ñëw na ci téere jullit yëpp ñu dal ko wéral donc lu ñu yonente bi bàyyil mooy téere yàlla bi ak waa këram léegi pourquoi nit ñi dal di ñëw dal di ne man toppuma téere yàlla kii toppuma waa kër yonente bi waaye damay topp kii nga xam ne eh, diw ak diw la kooku istihsaan aqli la dal di def dañ ko koy bàyyee waaye dafa bàyyi li nga xam ne mooy farata te mooy topp waa kër yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi sarihi dalil donc c'est très important tey ku nekk laajte boppam lan moo war a nekk taxawaayam ci waa waa kër yonente bi suñu taxawaay mbokk yi ci waa kër yonente bi du leen lu dul nangul leen déggal leen topp leen qul in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni yuhbibkum allah yonente bi ne boo leen buggee xam ne dëgg-dëgg da ngeen dal di gëm te bëgg yàlla na ngeen ma nangu topp man yonente bi comme ça ngeen am samara bi ngeen am natija bi ngeen am meññet bi te mooy lan yàlla bëgg leen mën ngaa bëgg yàlla te yàlla bëgg la léegi nag mandarga yi buy wone ne ki ku ne bëgg na yàlla yàlla bëgg na ko mandarga bi koy wone mooy nga nangu topp yonente bi te topp yonente bi mooy déggal ko ci lu mu lu mu la wax wa ma rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu li leen yonente bi jox na ngeen ko jël lim leen tere na ngeen si mooy tandiku te yonente bi moo ñu ne bàyyi naa leen ñaar yi kitaab allah wa ahla bayti ñaar yii laa leen bàyyil boo leen si sukkandikoo doo leen musa réer lu tax léegi nit ñi topp ñu ko am ñu ne téere yàlla bi rek la ñuy topp ak ibnu usfur ak ibnu karaja xawma ak ibnu batta ak ibnu kan ak kan kenn comprendreul waaye ñu bàyyi ñi nga xamante ne moom la yonente bi désigné donc c' est catastrophe donc ñooñu bu ñu nee bëgg nañ yàlla alors mën nañ ko wax mais est ce que yàlla bëgg na leen déedéet lu tax parce que bàyyi nañ li nga xam ne mooy topp yonente bi ci li mu ñu digal in kuntum tuhibbuuna la fattabi'uuni yuhbibkumullah ala kulli haal taxawaay jullit yëpp mooy war leen topp ñoom ñëpp dañ leen war a topp ammaa nag euh, ñi nga xam ne ñooy dal di ñëw di naan ahlul bayt dañ leen war a bëgg kese waaye waruñu leen topp euh, loolu maanaam dañ la war a bëgg kese ñu topp seeni kaddoo yu demee noonu loolu defe naa ne nit la koo xamante ne ñemewul boppam dafa nekk di daw liy dëgg dawkatu dëgg la dawkatu dëgg rek mooy wax ne dañ leen war a bëgg kese bëgg leen rek doy na déedéet bëgg leen kese doyul wax ci làmmiñ lu ko bëgg lu koy fe luy dëggal bëgg dëgg mooy topp qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni da ngay topp nga doog a am liy def tasbit que sama xabba boobu dëggu na ci yow dengeen ngeen donc ahlul bayt salaam ni ko yonente bi waxee bu buñ leen toppee dañuy dal di mucc comme ni ko yonente bi dal di leen melalee safinatu nuux safinatu najaat waaye waxaat feneen ñoom ñooy amaanul ahlil ard wa man taxallafa anhum gariqa wa hawa gariqa fii lujaji dalal wala yamanu abadan min alhalak xam nga yonente yàlla nuux doomam boobu keroog bu mu bañee dugg ci bato ba yàlla lu ko wax mu ne ko ah bu dugul de donte sa doom la dina dina dina dal di lab ci géej jooju donc ku nanguwul jàppandu ci ahlul bayti ak loo mun ta jàpp boo jàppul ahlul bayt rek nekkoo ci dëgg loolu yonent bi moo ñu ko wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi nag yow yaay xool ndax da ngay nax sa bopp ne man de bëgg naa ahlul bayt waaye damay topp ibnu usfur ak ibnu batt ak ibnu keneen waaye nga bàyyi ki nga xamante ne mooy mooy téere yàlla bi ak muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad te yonent bi waxaat ñu ni jamono june dina am ab imaam tawa man maata walam yarif imaama zamanihi maata miitatan jahiliya ñun ñëpp dañoo war a xool ana kam mooy doon suñu imaam ku ñu nee imaam nag du imaam karce du imaam yaamu sukro ba sama xarit waaye du imaam feneen ak feneen waaye imaam bi yàlla désigné ci alquranul karim tama dal di leen andil aaya bi jëlee ko ci chia ak si sunna yawma nadu kulla unaasin bi imaamihim keroog bu ñuy dal di woo mboolem nit ñi seeni imam du imam quartier ba de waaye imaam bi yàlla désigné si ñoom ñu dal ko topp te ñun tey ku nekk suñu imam muy imaamul mahdi dañ ko war a xam jàng ay jàngaleem topp ko léegi nag naka la ñuy dal di delloo ci ahlul bayt alayhimu salaam tey jamono yale weesu nañu maanaam jamono xilaafa ji li amoon am na jàppoon ne ñii moo waroon toog am kenn ko jiitu toog waaye imaama bi ba tey des ci ay may léegi nag yow en tant que jullit gannaaw bi nga xamee adilla dara warula la lu dul nga dal di topp adilla yu wér yi jaamoo ko yàlla pour lan keroog bés penc bu la yàlla taxawee dal di ne waqifuhum innahum mas'uluun na nga leen taxawloo parce que daam lu ma leen di laaj bu la yàlla laajte nga ne ko kat ah yaa rabbi kaana ladayya xujjatan baaliga man de amoon naa xujja ju mat sëkk xujja boobu mooy lan mooy yaa ñu digaloon nañu topp téere yàlla bi ak waa kër yonente te téere yàlla bi ak waa kër yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa topp looloo tax woykat bi daal di ne faaza kalbun bi xubbi ahli kahfin fa kayfa ashqa bi xubbi ali nabi sallallahu alayhi wa ali ab xaj ajallakumullah ab xaj dal dina texe mucc xaj boobu di xitmiir yàlla tudd ko ci suratul kahf muccu ndax dafa daal di topp asa ahlul kahfi naka la man mii nga xam ne doomi aadama laa du ma xaj naka laay texe di su ma toppee waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donc hélas ça ne pas être boo jàppandoo ci yonente bi ak waa kër yonente bi xamal ne à cent pour yaa ngi ci dëgg waaye boo jàppandoo leneen lu dul yonente bi ak waa kër yonente bi ak alquran bi xamal ne à cinquante pour cent jàppal ne yaa ngi ci doute lu tax parce que da nga bàyyi li nga xam ne lu wér la nga dem li nga xamante ne istihsaanaat aqliya la ay mbir yu ñu rafetlu la ci xel waaye teguñu ko ci qaala allah ak qaala rasulullah topp leen imam malik yalla waxu ko de topp leen xanafi yàlla waxu ko de topp leen xambali yàlla waxu ko de topp leen shafa yàlla waxu ko de naka noonu yonente bi waxu ko li yàlla yonente bi wax mooy kitaaballah wa ahla bayti téere yàlla bi ak waa kër yonente bi mu ne ñaar yi lañ war a topp te buñ leen toppee duñu musa réeroo ci gannaawam donc mbokk yi lii mooy wareefu bépp jullit tey topp yonente bi ak waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jërëjëf Seydina Jabrail Joob Assunni ci laaj bu am solo ji nga xam ne mooy laaj bu ñu war a def miskul xitaam wa nima su'aalin ja'alnaahu miska xitaamin kahaza mooy kam mooy douzième imam bi ñu war a topp gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa kooku ndaxam ba tey moo ngi dund wala génn àdduna waaw kooku kan la imaam muhammadunil ajjalallahu farajahu sharif mooy douzième imam ci ahlul bayt alayhim salaam te moom imaamul mahdi ajjalallahu taala farajahu sharif am na ñaari xayba yoo xam ne def na ko xayba bu njëkk bi mooy bu ñuy tuddee al xaybatu sughra mooy l'occultation bu ndaw bu mu lakkoo nit ñi waaye amoon na ñu mu doon gisel di as sufaraul nekkoon waasitatul faydi bayna annaasi wa imaami zamanihim ñoo nekkoon ñu doon dox diggante nit ñi ak seeni imaamu jamono waaye après année boobu nga xam ne mooy trois cent vingt neuf légire gannaaw bi nga xamante ne safiiru rabi bi dal dina génn àdduna ci la imaamul mahdi ajjalallahu farajahu sharif dal di duggee occultation bu mag ba ñu gën koo xamee alxaybatul kubra alxaybatul kubra depuis bu mu tàmbalee trois cent vingt neuf lésir la ba tey xaybatul kubra moo ngi am waaw est-ce que imaamul mahdi ajjala allahu taala farajahu sharif mën naa dund loolu yépp ba tey axankañ mbokk yi li bu ñu xoolee am na ay yonente yàlla yu bari yoo xamante ne dund nañu at yu baree baree bari lu si mel ni yonente yàlla nuux am na ñu ne deux mille et quelques ans la dal di dund yonente yàlla Idris ba tey am na ñu ne moo ngi dund yonente yàlla Isa kenn werantewul yàlla rayu ko ba rafaahu ilayhi te keroog bi yàlla nammee feeñal ko dina ko feeñal te kañ lay feeñal yonente yàlla isa mooy jamono imaamul mahdi yonente yàlla isa bu ñëwee dafay dal di imaam mahdi moo koy jiite julli yonente yàlla isa nekk ci ginnaawam parce que bu boobaa moom yonente yàlla isa dafay topp kii nga xam ne mooy imaamul mahdi di amalul anbiya loolu nag téere yépp dal dinañ ko tudd donc imaamul mahdi juddu depuis l'an deux cent cinquante cinq légire juddu na bu yàgg waaye e, su ma jumul deux cent cinquante cinq légire la jëlee xilaafa bi la jëlee imaama bi waaye keroog bu mu judee ba tey génnul àdduna lii firnde loolu nag bëri na bu ñu xoolee par exemple Seydina Cheikh Ahmed na Tijaani mu dal di boo leen xoolee ci xasidam bi moom fay woy di wax ne wal di alladi sawfa yanjali al injila mooy loo xamante ne dafa am mais mujjee feeñ xam nga bu ñu ne injila u shams mooy samsu bi léeg-léeg ku suuf bu ko jàppee bu dalee feeñ ñu daldi ne a ah, injala shams aw injalati shams li annaha muannas ma'nawiya donc imaam mahdi alayhi salaam ba tey moo ngi dund amul kenn kenn koo xamante ne ci tashayyu nee nañu imaamul mahdi dundul bal sunnit yi ñoom ñoo gëm ni imaamul mahdi alayhi salaam am na waaye nag eh, judoogul ñen na ci ñoom waa bal ñu bëri ci sunnit yi dañoo déggoo ak chiit ci côté bii mooy imaamul mahdi judd na te eh, imaam Xasan al Askari mooy waajuram te bis dina ñëw sa yamlaul arda qistan wa adlan baada an muliat zulman wa jawra moom imaam keroog bu mu feeñee yonente bi dal dina sa yamlaul arda qistan wa adla dina feesal aduna bi ni njub ak maandute comme ni mu feesee woon ñakk njub ak ñakk maandute donc ñu war a xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dëgalee na ko imaam eh, kii nit ñi avant mu fiy jóge ndaxte inna al arda la taxlu an imam ndax wa ida xalat ardu an imam la saa ida xalat il zamaanu an imam la ardu bi ahliha bu suuf si amul imam jamono bu ñu war a topp ah ñoom ñëpp dañuy dal di dee donc boo gisee tey yonente bi eh, yàlla bàyyi ñu fi mooy lii tax yàlla bàyyi ñu fi bokk na ci imaamul mahdi ajalallah farajahu sir parce que moom mooy suñu imaam jamono am na sax ñoo xamante ne wax nañu ni bokk na ci alaamaatu saa mooy zuhurul imaamil mahdi bu feeñee rek xam leen ne àdduna presque moo ngi waaj a jeex lu tax parce que ñi yàlla daal di désigné ñooy doon amaanun li ahli ard kama ne nujum amaan li ahli sama day fekk yàlla jël na leen donc bu boobaa ñu nekk ci beneeni programme donc fikra bii nii idéologie jullit ñi kese amuñu ko que aaxiru jamono dina am munqis boo xam dina ñëw sauver nit ñi même catholique yi am nañu idéologie boobu que dina am ci mujjanteel jamono kuy ñëw daal di sauver nit ñi amaa judduwam juddu na bu yàgg comme nu ma leen ko waxee bu waajuram di imaamul Hasan al Askari ba tey moo ngi dund amaa nag bëriwaayu atam bëriwaayu aazam bi loolu nan la mën a nekkee loolu ku koy weddi mooy képp koo xamante ne da koo bëgg a weddi rek takaaburan walakin laysa ilmiyan da koy weddi pour réy réylu waaye du ci xam-xam parce que bu ñu xoolee ci alquran kenn rek laa jël yonente yàlla isa nee naa leen ba tey moo ngi dund te yonente yàlla isa qabla al milad kaana yaish wali haddil an yaish donc fu yonente yàlla isa fu ko yàlla def yonente yàlla eh, imaamul mahdi alayhi salaam ajjalallah farajahu sharif moom it foofu la ko yàlla dal di dugal donc Seydina Jibril dañuy dal di wàccee barke rek ci résumé bu ndaw ci li nga xam ne moo jot a jàll mooy imaama benn martaba la boo xam ne divine la yàllaa koy désigner yàllaa koy joxe du tàndeefu doomi aadama imaam yooyu te yàlla tànd leen nu mu tàndee woon yonente ya ñooñu lañ ni ko yonente bi waxee ala immatu baadi isna achar te douze yooyu selon ñun chia yi dañoo ne mooy imaam Ali tàmbale ko imaam Ali ba ci imaamul Mahdi douze lañu du ñu onze du ñu treize maanaam wàññeewuñu yokkuwuñu aussi te mantiq bii nii logique bii nii ci ahlul bayt rek lay dal di àndal ci ñi topp chia yi nga xamante ñoo nangu topp ahlul bayt ñoom ñoo nekk ñoo am dëgg-dëgg ci dëggo ak xadis bi bal ñeneen ñi nga xamante ne suñu mbokk lañ ci sunnit yi wéral nañu xadis bi ne ay imaam yi seeni gannaaw douze lañ waaye nag ñoom amuñu douze imam soit dañoo am quatre imam wala cinq wala ñu am treize imam wala quatorze loo xamante ne motul douze wala mu gën wala mu ëpp douze euh, loolu benn beneen bi mooy suñu imaam yi alayhimu salaam mafrudu taa lañu ñoom ñëpp dañ leen war a topp ndaxte yàllaa ñu ko digal qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fi l qurba naka noonu waxu yonente bi bu muy naan inni taarikun fiikum thaqalayni lii yëpp dafay tegtale ni topp ahlul bayt lu war la topp ñeneen ku dul ahlul bayti loolu ku ko def rek yaa ngi topp li nga xam ne moom nga bëgg rafetal ko sa rafetal ko sa xel waaye du lu wax nga topp ko du lu yonente bi wax nga topp ko li yàlla ak yonente bi wax ñu topp leen mooy ñaar yi kitaaballah wa itrati ahla bayti mooy téere yàlla bi ak waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te imaam yii nii nag alhamdulillahi rabbil alamin ku leen ku si mujj mooy imaamul mahdi ajjalallahu taala farajahu sharif te moom imaamul mahdi ajjalallahu taala farajahu sharif mooy imaam ñëpp tey ñu fi nekk muy ngay suufiya muy ngay wahabiya muy ngay chiite nga xam ko nga ñàkk koo xam moom mooy sa imaam waaye nag problème bi moo ngi nekk ne boo deewee nanguloo koo xam te jëfee ko boo boobaa nga xam ne yonente bi nee nga laqad mitta miitatal jahiliya di nga dee deew kuréera di te képp kuréera di xam nañ mujjantelam fan la yàlla nañ si yàlla musal donc xam aima yi lu war la ci ñun surtout ñun tey ñi nga xamante ne ñoo nekk ci jamono ji imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif mooy suñu imaam keneen du suñu imaam ku dul imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif looloy dëgg te looloo wër te looloo ñëw ñu dal di ko wéral chiatan wa sunnatan donc aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu donc mbokk yi exactement juumuma imaamul mahdi moo ngi juddu deux cent cinquante cinq lésure waaw deux cent cinquant cinq lésure la judu te depuis bu mu juddoo ba tey moo ngi dund ni yonente yàlla isa dal di dundi ba tey te kenn amul preuve ni dee na yàlla ñu wax ne ci alquran bal rafaahu ilayhi donc loolu la incha allahu taala imaama aussi benn ponk la ci ponk diine bi waaw imaama ponk la ci ponk diine bi ni tawxid ak nubuwa ak im euh, ak adlu ak maadu nekkee ponk ci ponk diine yi ponk diine bi noonu la imaama nekkee ponk ci ponk diine bi maanaam dañ koo war a gëm te waruñu di def taqlid kenn lu ñu war a fas la gëm ko donc loolu la woon incha allahu taala ma leen di jox dig daje ba beneen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.